wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokki daara assalaamu aleykum wa wa barakaatu ngi ñaan borom bi tabaaraka taala mu may leen dund gu barkeel te ko del nañu ci daara niñ fi daan ñëwee at yi weesu yépp may nañ ñu ku nekk ñetti minute maa ngi ñaan ñu yokkal ma ci yeneen ñett ñett yu njëkk yi ma wax ci thème bi ñett yi ci tege ma def na ma daan def ngeen def na daan def ñu defal ko daara ji sama ñetti minit yi njëkk yi bi ñuy ñëw daar ji daa wax ne ren dañuy waxtaane taxawaayam ci jëmale réew mi kanam loolu la bëgg a wax àdduna ci yépp ñi ko xamoon fàttaliku ko ñi ko xamutoon xam ko ñi ko yëgutoon yëg ko yàlla baax na ba yëglekaay yi léegi jombul bu ngeen yëglee ñépp yëg ko daara bu bëggee am réew jëm kanam dafa am ñeent yoo xam ne kenn mënu ko cee wutu école mënu ko université mënu ko ak lycée mënu ko daara dong ko mën ñeenti yëf la la jiitu ca yooya mooy daara day xamle te kum xamal dana la ubbi ba nga bëri ay xam-xam ci liy dox adduna boo demee ci école bu lay xamal da xamal benn matière ne la moom nga am jox la ci diplôme ne la demal ñibbi ñu ne diw dafa agressé ci nàngam mais daara boo laajee ñi ci daara daanaka tuuti ko ñu doon aalamu kulli fanni loolu la daaray def kenn mënu ko cee wutu na bu ñaaral bi daara kim xamal da koy mooñ ci muy jëfe lim xam waaye bu doon koo xam ne kii da jàng benn barab ba ne ci ar ne fa ñukk la nga xam déedéet daara da lay xamal ba noppi fexe ba li nga xam nga di ko jëfe loolu kenn mënu cee wutu daara loolu kenn mu ca wut daara bu ñetteel bi daara comme jàngal yar la dafay def ci yow ak njàmbaar lu ñu tudde aw fit ngeen baal mu ubbi benn parenthèse nee nañu bi ah góor gi Ahmed Sakhir Lo di ñëw fii xam ngeen la fi nekkoon ku amutu fit mënut loolu ku daara yarul jàngalu la ñim woo sañcum àll ndax doo fa ñeme ku daara yoon jànglu la doo sañcum àll mukk max la ba tey loolu la daaray def ci nit dafay def ci yow ak njàmbaar gi nga xam ne mooy tax li nga xam nga mën koo jëf li ngeen ci xam moo ëpp li ma ci xam bu ñeenteel bi li daaray def te kenn mënu ko ku dul moom mooy yar nit ci doylu defar nit ba mu doylu jamono yiñ fi am ministre yi jóge ci daara nga xam ne réew mi booba réewum daara la woon da jàng tubaab mais daara ngay jaar booba këpp kees xewutoon lekk ay milliards xewutoon parce que booba nit ñi daara lañu jóge ku daara jóge ci daara day doylu loolu daara moo ko doon def ku dul daara nag mënoo ko ñu dul daara mën nañoo yar nit waaye nag day doon ko teey rek buy jekku kees gi muy jël ma wax la ko tey bu la mënee naxit nax la ma wax la ko waaye daara moom ñeenti yi kenn mënu ko cee wut mu tax bi tubaab bi ñëwee nag bëgg lim yor wuutu daara mu tàmbalee fam tàmbalee xamoon na ne bu ñëwee tudde lim yor école du ami daal du ami élève mu tudde ko la médarsa di doxal di joxe diplôme te cay teg looy serale ndox ak di la may bomba bu ñu wax la marchés nga teel a nekk fonctionnaire ndax mu nëbbala liy daara nëbbu say doom lii daara teg la ci yoon bi ngay jàngee la carte de Birame le pantalon de Wéchili ak le to ak Toto daara moomu nag di def ñeent yi dafa am lu waa daara séentu ci moom penc mi nag buñ tag tabaxee école ñoom tam daa am luñ séentu ci ecole moo tax buñ defee ci daara léeg-léeg ab sarax lay doon waaye fee moom dañ fay def dañ lay wutal ku lay jàngal fooy jànge li ngay jàng léeg-léeg ñu domp daara jox la tudd ko bourse daara nag moom dañ wax ni moom munu munu leen génneel dara nee nañ xanaa xanaa ilimaan nee nañ peut-être wala ab bilaal wala jàngalekatub alxuraan moo tax waa ji ñëw sama daara ne ma dama fee bëgg def benn atelier bu xale yi jàngee ba noppi ma jàngal leen menuisier mën na ko demal ci lycée bee nga def ko fi moom li ñuy jàng doy na sëkk yàlla yàlla dimbali sama ñetti minute foofu la yem ñetti nii ma ñaan nag mooy ginnaaw daara ku fi def jàpp ne yalwaan la nun ñii noo séntu dara ci daara mag yéen daaw jéeg crédit laa leen jaayoon daaw réseau ren jaayu ma dara waaye daal xam naa ni fi ma taxaw li ma indi doyut bëgg naa ñi ci tant bi ñëpp ak ñi ci biti dajaleel ma somme bu tudd cinq cent ñu dajaleel ma somme bu tudd cinq cent mille ma boole ko li ma indi woon téeméeri nit bu ku nekk indee cinq rek ma am cinq cent mille def naa loolu warul yàgg loolu mooy sama ñetti mbind di ci des ku ci joxe wut nag ñaanu lu ma la ku ci joxe nag yàlla na nga new jëwén nga joxe waat ku yor mbuusit loo dajale na nga ko indi ku mën a agsi fii jox ma som bu baax moom moo ma gën classe bu Ablaye Diagne ñoom seen yooyu xam naa moom liñ may jox dana xaw a ma xaw a yéen dong nag laay xaar ne ñetti minutes yi jeex na te it mënumaa jox micro bi te dajewul jiitu ak ka ko jiitu amin amin sama mbokk mu jógee Gambie ñëw nañu nan ñëw ah waaw góor meer ah, waaw góor maam ami jërëjëf defal ma ci jox ko mbaxanaam Cheikh Tall ngol ngol ma delloo la wala mu wecc la wecc ma ma joxe li ma ma leer na naa wecc ko al ma wecc def ko def ko ñaari cinq ndax mu jox lu sakkan ko. ñëw ngi ñëw nañu waaw man ah, ah, deux mille laa lay jox. waaw ah, am <laughs> dese naa benn minute ak genn wàll. Lamine Gueye yàlla fay la. am de lee daa wadd solo. am ah, ah allah ñëwal. bu nu mokkalee joxe rek léegi tey daara am nu mel. ndax bu xaar ku nu ci daara day yàgg. te lu nu jox rek tudd comme yalwaan mbala nangam te fu nu yalwaan ñu coow nu kon nan na yalwaan kon nag nan nanu nanuy dajeel suñu bopp di def tey xalaat bu ëllëgee bu nu fi jógee lu nuy def ndax yi fi nekk li dong la ma ne ki ma jiitu ki ko jiitu ki ko jiitu ki njëkkoon wax daf doon wax ci liñ fi mosoon a daje benn bis ko ko waqf lan mooy waqf mooy ku jóge ci place bi dem ñibbi amoon taxi buy daw mu may ko daar ji muy daw di verser loolooy wax te bu waa ji faatoo day xam day door a xam lim def wala saw fa yardaa gisuma fi ne génn jigéen bu joxe gisuma te yéen li ngeen a joxe ah da ko yóbbal àllu ma ci xam Bichri TV ñëw ngeen waaw lii de moom moo ma ci gën a la dese naa benn minute jox ma lee macha allah daf may baatare daf may baatare allahu akbar daf may baatare macha allah ke mooy Sayda Jamila tout jaxate mi ngi nekk Bichri TV ndax ma doon baatare na gaayee def fële tabarakalla jàllo na gaayee baatare fële ëllëg day am mbugal ñiy baatare fii day am tuyaaba boo gisee joxe fii yombut inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba moo tax boo boo mënut it jéemal ndax nga bokk ci tayyibuna yi am na solo de fële nag seytaane mooy wax joxeel bañ xam yaay kan moo tax joxe bay bari wañul ma ba xam mat naam déet 30 secondes moo ma dese. ñaar fukk ak ñaar. ñaar na ma ñaar fukki junne waaye wax nga dëgg yéen a jóge gàll waa gàmm bi joxe nañu ñaar fukki junne ñaar kon kat lee ba matal yàlla na yàlla fay leen ngeen dellu ci jàmm te yàgg ñëw fële ca kaw ñëw na ñële na le ñoo ma dese kon ma joxe micro bi ñële ca tribune ba bu nu ñëwee rek ma matal insha allah laajal ma kii ba xam daf may baat ren déet am day ñëw rek xaj loolu waa làmb faal vingt mille masha allah defal ci biir dese naa dix secondes waaw ah, baax na ci de technicien yi waaye di caméra rek te doo jël nee na ñu tegal ko fii moo njëkk waaw tegal ko fi ñu wàññi ko kon nag mbokk yi maa ngi leen di jot li nuyoo soxna Aminata Tall bu conseil économique social et environnemental fala bokk ñuy jéem a xelal njiitum réew mi ci di leen jot ci liñ kàddu Ahmed Dame Ndiaye moo war na waaye dafa am fu ñu war a ànd maam moom ma ne ko ne dem foofu ma ma ñëw fii genn ñaan rek laa am nag bu may ñaan waa réew mi jërëjëf mooy yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te